télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ci gën a fës di doy waar li xew tey ji ci digg bëccëg gi ci diwaanu ñetti mbaar nekk kon ci Pikine di benn waay bu ñu fekk mu faatu ci tabax bu yeggul dañu ko takk ci buum yoor ko anam ya mu faatoo jaaxal ñu bari ab néewam yóbbu nañu ko ubbi nañu ci ab enquête sapeur pompier ñoo jël si noone néew bi daal di ko yóbbu police ubbi cib enquête ngir xam kon ana la xew danañ ci dikk ak yéen ci témoignage ci xibaaru timis yi nappkat yi ca diwaanu Wakam taxaw temm mu ci gën a dooleel seen secteur ba méngale ko ak jamono nee nañu gaali looce ñuy nappee doyatu leen li ñu bëgg moo di ay bato ñi ngi ñaaw lit ni ñuy tabaxee ci wetu géej gi ci seen gis-gis bokk na ci li yàq géej gi ak li nasaxal lii di napp gi njëgu dund gi nga xam ne dañoo wàññi njëg yi am fu ñu ko yemale sababoon tey ji ndaje moo xam ne Aminata Assome Diatta ministre du commerce moo ko woote woon ci CICES chef de quartier yi la ca woo ngir ñu dugal seen loxo bu baax a baax gis nañu ne téeméeri boutique yoo jël ci réew mi ci ñu contrôler leen ñaar fukk yi ak juróom tegewuñu ci yoon maanaam jëfewuñu lii di njëg yi ak dogal bi ci état bu senegal euh, jël wàllu ndaamaraas ak ña cay yëngu li ñu bëgg mooy juróom-benn fukki junni tonnes yi nga xamante ne ji Sénégal nga koy exporté muy dem bitim réew ñu daal di koy yokk ba mu yegg ci téeméeri junni tonnes bëgg-bëgg bi ñu ngi ko siiwal gannaaw assemblée générale consultative gi nga xam ne doon nañ ko amal ci diwaanu Ziguinchor mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxeerlu ñu faram fàccee leen ko. nuyu leen rafet ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaatal xibaar yi doore ko ak mbir mu doy waar mu ñu gis tey jii ca Pikine ñetti mbaar benn waay la ñu fekk ci tabax bu yeggul mu faatu nañu ko fekkee anam bu doy waar la ndax dañu koo takk ci buum yor ko sëndëmtal tànk ya la ko faat xamaguñu ko police ubbi na ci enquête pompier ñoo mujj jël si néew bi tey jile benn waay bu ñu naan Modou Ndiaye moom euh, fekk yëf am na kàddu leeral yooyu dénk na ko ci ndonga ka bizarrement quoi dañu yeewu rek si jànk bi tam di yeewu di di di beeri yoroon mi rek bi. di heures 11 heures ah rek yuuxu waay waay waay kaa leen seet kaa leen ko lan la booy lan la kaa leen xool kaa pour gars yi ñëpp daw dem ci kaw xool yaa gis fekk waaye takk bi xam naa fekk xam naa fi la fanaan xam naa di ñëw daw ñëpp daw di ñëw ñëpp daw man ay eh, bu kenn laal bàyyi la ñëw police bu kenn laal bu kenn laal yaa ngi dégg après mo on sapeur au police ñu ne waa ñi waaye kon moom kenn xamee ko fi kenn xamee ko fi kenn ko fi xamee du ko maa moom dëkk fi yëpp moom dëkk fi dëkk fi yëpp kër gi c'est une maison abandonnée quoi fi lu ne la moo fi lu ne la fi gars yi di sànni lu ne leneen coow di jafe-jafe suuf loo xam ne am na fële ca terrain bu nekk ci sacré kër dend ak boulangerie jaune euh, Benno Bokk Yaakaar euh, bu boobu les communes yëkkati seen kàddu di sàkku ci euh, maanaam di xamle ne daal ci taxaw temm kon ci jël boobu les terrain ca la ñu nekk ci yu la jamono coordinatrice bu coalition ca ba ci diwaanu commune bu Mermoz sacré kër di Ndeye bint Gassama ak it député doon it conseiller municipal di Juliette Zinga ñoom nee nañu ñuy xaar daal dogal bi nga xamante ne ji kilifa yi danañ ko ci jël ñu ànd ak euh, secrétaire général bu quatrième coordination bu parti socialiste wàccoon nañu ca terrain ba tey ji ci samedi ji ngir waxtaan ak euh, yëf yi euh, waxtaan kon ak askan wi dañ ci ànd ak Alhassane Ba. dañu profité ci journée action yi ñu jàppee ay action investissement citoyen ngir addu ci terrain bi nga xamante ni moom moo nekk ci Sacré Cœur mi nga xam ne jamono ji nag dafa jur coow nee nañu ñoom fas yéene ñu bàyyi mu daañu xeex ngir récupérer ko pour seen ndaw yi. terrain bi. Hmm. man jeunes yi seet nañ ma wax ma problème bi biñ ma seet aussi li ma si mun a def yëpp jàppale naa leen si pour ñu taxaw parce que loo xam ne ay euh, comment dirais-je encore ay document administratifs ñoo lié commune bi ak terrain boobu dinañ ko dox dinañ ko wax lu ñu si mun dinañ ko si def pour xale yi. jàppale leen pour commune bi ci boppam retrouver waa terrain boobu bi nga xam ne ñun ñoo ko moom. Benno Bokk Yaakaar section Mermoz Sacré-Cœur di wéy di investir terrain bi ay weer kese des ci local yi lu jëm ci wàllum tànnee tànneefu candidat pour commune bi nee nañu dañuy déglu ki nga xamante ni moom mooy njiitalu coalition bi. te moom xam nga suy tànn du parparloo day xool rek li nga xam ni moo gën muy profil bi gën mu jéem ko teg pour que ñu am chance su gagner élection yi loolu nag balaa ñu siy egg. dafa jaadu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf mais bu ñu xaar loolu ñun ku ci nekk da nga war a nekk taxaw temb ci terrain bi di xeex pour jëmbal di fësal liggéeyam di fësal aussi su ñu yéene ci gox bi. dinañu jëm def suñu résolution boo xam ne dañ koy jëmbal suñu présidente Aminata Mbengue Ndiaye jox ko ko ne ñun fii au niveau de la quatrième coordination A de Mermoz Sacré-Cœur notre candidat c'est Alpha Bayla Gueye pour la candidature à la candidature de Benno. am nañ unité boobu président Macky Sall muy décidé. kuy nekk candidat dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur képp kum fi teg muy candidat képp kum fi teg laa wax muy candidat man sama rôle mooy jàppale ànd ak ñëpp topp si ginnaaw candidat boobu. action yi ni mel daañ ko wéyal ci quartier yëpp nekk fii ci commune bi ginnaaw amitié daañu dox ca Mermoz jubali itam ca Sacré-Cœur. mool yi ci diwaanu Wakam taxaw nañu temm ci méngale napp gi ak jamono maanaam moderniser ko nee nañu bëggatuñu di dem géej ak gaali yi bëgg nañuy bato ñaawlu nañu it li ñuy tabaxee ci wetu géej gi ndax ci seen gis-gis bokk na ci liy yàq napp gi ak la koy delloo gannaaw ñi ngi ko xamle ci daje bu ñu amaloon ci seen biir ñoo ànd ci ak Pape Fara koy def ci booru géej gi lu mel nag day yàqu bu baax a baax napp gi nga xam ne moom la ñuy amal ca waax ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu ngi artu ñi nga xam ne ñoo nekk nguur gi. lii ci métti moom mooy tey jii war nañ ko euh, euh, construction yi nga xam ne ñu ngi koy def ci littoral bi te bu ñu ko defee garawaay bi ñu yor yëpp ci géej gi lañ koy xëpp mu ngi polluer géej gi loolu tamit réflexion la ñun du duñu technicien mais loolu bëgg nañ état def ci benn réflexion boo xamee ne dina jur. gannaaw ay waxtu ñu def ko ci géej gi bi ñu teeree nag jën yu tuuti la ñu am li la tax nag ñi nga xam ne ñoo leen jiite. di laaj yeneen jumtukaay ngir mën a napp bu baax. boo gisee ñu demandé ay bato du question ko pour mareyeur yor bato wala pour kenn yor bato mais pour pêcheurs Sénégal amal seen bopp seen bato yi bopp bato yoo xam ne tey bu ñu demee ci géej gi tey danañ dem ba étranger yi nga xam ne dañ fi napp ñu jëlee leen fi bàyyi suñu réew suñu géej suñuy mooli bopp di ko napp parce que biñ xaymaa ne bu ñu amoon 100 bato tey partagé ko mooli Sénégal pêcheurs Sénégal yaakaar naa tey dinañ dinañ ñuy am ci loo xam ne moo ëpp fuuf li ñu doon jaay ci union européenne yu demee noonu parce que boo doon jaay union européenne 10 milliards tey say 100 bateaux yooyu day mën a dugal 75 milliards ci wàllu emploi dala jox 3000 emplois kon loolu tey yaakaar naa ni mooy gën fuuf ngay bàyyi say doomu réew ñuy taxawaal di mbëkk ci gaal yi di dem di dee ci géej gi. fexe ba ñu amal pêche industrielle li nu mel nag nappkat yi nga xam ne ñoom lay fekk ca waax wa ànd nañ ci. tey pour ñu jàppale Sénégal pêche industrielle. port de Dakar bi tey ñu ko tëj mm-hmm. géej gi foog am gaal ba tey di nappa gaal yi di nappa mm-hmm. parce que Sénégal dafa am port mm-hmm. bato dafi war a dem géej léegi tey président am na vision que ne mool yi ñu ngi kaas ne étranger ñu ngi ñëw di jël jën bi di ko yóbbu tey ñu am vision ne dañuy créer ay bato yoo xam ne ñun acteur de la pêche yi ñooy nappa si géeju Sénégal di ko jaay européens yi donc lu mel noonu bu amee ñun am nañ ci dégg-dégg président dañ bëgg projet boobu lu mu gën a gaaw ñun ay xale lañ lu mu gën a gaaw mu gën a baax. ngir réussir nag changement bi nu mel lu toll ak juróom-ñetti téeméer ci ay nappkat tàggat nañ leen bu baax a baax ci ñeenti wax yu mag yi nekk fii ci Ndakaaru ngir bu ñu demee géej am ndawal lu bëri. kuréel gi yëngatu euh, ëmb kon ñi yëngatu ci wàllu ndaamaras amal nañu seen assemblée générale ci diwaanu Ziguinchor lañ ko defee ba fal njiit lu yees ngir professionnel ba mi ngi wuyu ci turu Boubacar euh, Kanta fa la yëkkatee ekat lu xam le ne yéene ji moo di soixante mille tonnes ndaamaras yi Sénégal di exporte at mu nekk danañ ko liggéey yóbbu ko ba mu yegg cent mille loolee ak yeneen ponk yu mu fa wala dañu koy déglu moom président bu yees bi Boubacar Kanta lay wuyoo ñu déglu ko ak Boubacar Diassi. 15 lañ ko tàmbale. mais yàlla def na tey lañ ko mettre en place ma jiite ko man ak équipe bi ko jiite suñu mébét mooy vraiment yokk production Sénégal mu jógee soixante mille tonnes bi mu nekk dem ba cent mille tonnes fii ak deux mille vingt quatre mais aussi dimbali xëyu eh, xëyu gune yi ak jigéen yi pour que ñu mën a créer neuf mille emplois te loolu su ko defee vraiment dinañ mun a contribuer au vraiment si politique du Sénégal émergent donc eh, li ñu mën a loolu mën a yomb la parce que am nañu depuis deux Euh, lëkkaloo bi nga xam ne ñu ngi koy def ak COSEC ak la der pour vraiment am financement si suñuy banque partenaires yi donc loolu bu ñu defee financement au niveau des producteurs pour seen crédit d'investissement accompagner transformateurs yi créer des champions de transformation loolu dina mun a yomb incha allah Pambal ma nga ca diwaanu Kees foofee lu jege ñaari junni jigéen ñoo ngay góorgóorlu ci mbay mbay mi nag eh, mi ngi jëm ci ay dugub mboq ak ceeb ak yu ni mel yemuñ ca ne dana ñu bay ay lujum li ñu bëgg mooy taxal ab unité de transformation ku leen ci dimbali ñu jël ndax amuñu moyen te moo ne day nee nañu buñ ko amee sunu liggéey dana gën a jëm ca kanam Cheikh Anta Diop ciy leer. di ay soxna nekk fii ci Pambal di yëngu ci tool yi di bay ay mboq dugub ak bépp meññeef. bés bu nekk ci tool yi la ñuy yandu tey jii de soxna yi nee nañ am nañu ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu formation ndaxte li nga xamante ni moom la ñuy bay dañ koy bëgg di coppar ñi waaye nag ay jumtukaayit da leen a manqué. leen di digitaliser ba pare ah, wan leen wutal leen formation surtout sur la gestion la gestion d'entrepreneuriat ñi nga xam ne ko ci nekk boo amee sa formation nga mën a jëriñ sa bopp mën a liggéey te mën a denc. il faut ñu dem seeti au niveau du gouvernement ñu ñuy jàppale ba ñu mën leen a ñu mën a liggéey na c'est presque unité entreprise boo xam ne bi mën a transformer ndax ñoom ay béykat lañu te li ñuy bay itam suñu ko amee usine bi ñu ko mën a former sur place ñu defar ko. ab réseau bu yees bu ñuy duppee réseau panafricain teg ay jumtukaay ngir nag tàggat soxna yi ba lépp loo xamante ne defar nañu ko bëgg koo jaay bitim réew ñu mën koo jaarale ci xarala yees yi. muy aussi jigéen ñi nga xam ni tam ci àll bi fii lañ nekk ñu mën a fexe ba dimbale leen d'abord digitaliser comme je dis former. jàngal leen outil technologique bi leen jox nan lañu ko utiliser. di ay coppite yoo xamante ne amal nañ ko fii di ci jàppale nag jigéen ñi nekk fii ci Pambal mu nekk mbir mu yees boo xamante ne buñ ci sukkus ñu ko nee nañu dinañ dem nag bay tabb ay unité yoo xamante ni jigéen ñi dañ ci man di liggéey. njëg yu yees yi nga xamante ne ji état bi santaane ko jëm ci njëgu dund gi sàkku ci jaaykat yi ñu di ko jëfe boutique yi nga xamante ne ji xool nañu ndax ña ngi koy jëfee am de téeméer yoo ci jël ñaar fukki ak juróom tegewuñu ci yoon loolee ñi ngi ko xam ne tey ji cim ndaje moo xamante ne ji ministre commerce de Aminata Assome Diatta moo ko woote woon ca CICES woo woon ci délégué euh, waloon chef de quartier yi la mu bëgg ci ñoom moo di ginnaaw jege nañu askan wi jege borom boutique bi ñu dugal seen loxo ci xeex bi bu baax a baax ak sensibilisation gi ñu ànd ci ak Ba délégué de quartier yi ñoo wuy si wooteeb ministre yor wàllum njënd meek njaay mi ngir fexe nag ba ñu appliqué njëkk yi nga xamante ni ñoom la ñu fixé Aminata Assome Diatta bëgg leen boole ci processus bi. bu ñu leen imprégné dugal leen bu baax ci boole leen ci liggéey bi euh, bu consommateur bi demee ci boutique bi gis ni boutique bi respecté wul prix yi nga xamante ne moom moo war. moom la ñu moom la ñu fixé mën na ëlbatiku dem gis la délégué de quartier délégué de quartier bi. bu fekkente ne euh, waxtaan ak boutiquier bi mu respecté prix yi respecté conditions yi nga moom lañ teg affichage beeg yooyu amul problème mais bu fekkente ne mënu ko respecter bu booba délégué bi dafay o les services du ministère du commerce ñu intervenir. ñoom délégué yi nee nañu seen xel dal na ñu ne xam nañ bu baax liggéey bi leen di xaar. danañ dem vers les boutiquiers wax ak ñoom xam ne prix yi wàññi nañ ko comme ni ñu ko waxee rek képp koo xam ne nii ñëw nga am sa problème borom boutique bi yokk ñu dem ci moom waxtaan ak moom mu bañ a wàññi. on va saisir comme ni ñu ko waxee rek les autorités ñoom tamit ñu ñëw taxaw wax ak ñoom. bu ñu jógee fii incha allahu rabbi liggéey bi nu ko bëggee dinañ ko defee ci kàttanu yàlla. waaw dinañ lal ay pexe yu yaatu yoo xam ne ni daal vraiment sénégalais yëpp dinañ xam ne affaire yi wàññi nañ ko. bi ñu tàmbalee opération yi ci terrain bi ba léegi lu toll ci ñaari junni ci ay marché ak ay boutique jot nañ leen visité nee na moom jëruñ jër wàllum jënd meek njaay mi luñ jotagum ci résultat mën nañ jàpp ne. am na solo. li ëpp ci ñi ci établissement yi ñu jot a visité ñu ngi respecté ndax lu weesoo ñaari junni établissement visité nañ ko te yooyu boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo respecté wul prix yi xëy na mu ngi toll ak. Euh, 25 wala 30 pour cent donc euh, pour wax ni le niveau est assez appréciable te am nañu yaakaar ak implication délégué de quartier délégué de marché yi yëpp incha allah ak association de commerçants yi dinañ mën a atteindre euh, niveau de taux de respect boo xamante ne des prix bu bu ñëpp di kontaan. muy xamle ne ci activité yi ñu amal de mise à niveau moom ministre bi fas yéene na organiser ab session de formation jëmale ko ci journaliste économique yi ci lu jëm ci wàllum libéralisation njëkk yi. délégué de. inspecteur académie bu Pikine ak Guédiawaye xam le na ne lu bari ci jàngalekat yi fare ci banlieue bi nangu nañu ñàkku ji laata école di tijji eh, loole nag eh, xalaat la bopp eh, kii di Alioune Sall maire bu Guédiawaye ak it Abdoulaye Timbo maire bu Pikine rafetlu nañu ko bu baax a baax. ñoom ñaari kilifa yi teewoon fële cib séminaire bu ñu doon def ca diwaanu Saly ca Mbour ngir defub jàngat akub xayma jëm ci école gi tëj ana nan la demee lu ca doxook lu ca doxul ak it nees di waajalee ubbiteeg école lu déwén gi Abdourahmane Diallo la ñu ci yàndal yor wàllum wér-gu-yaram bëgg na vacciner jàngalekat yi ak étudiants yi inspecteur académie Pikine Guédiawaye di rafet lu dogal boobu. jàngalekat yi en tout dans leur grande majorité maanaam ñi ci ëpp bi Covid bi dooree sax ñu ci bëri dañu doon euh, ñaxtu pour que ñu ñàkk leen kon tey jii ministre de la santé su demee ba annoncé loolu ñun vraiment dañu ci am am dañ ci kontaan bu baax. rawatina fii ci Pikine Guédiawaye ba nga xam ne action yi nga xam ne ñun dañ ko war def jëmale ko ci rentrée bi dinañ ko gis léegi ci rapport bi wàllum ñàkk jàngalekat yi ci la bokk. moom mu daal di ñëw Saly ngir dajeek ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum njàng mi nekk ci banlieue bu Ndakaaru Aliou sal di meeru Guédiawaye jàpp na ni war nañu amal communication bu baax ngir ñaax jàngalekat yi ak étudiants ñu mën a vacciné wu. maanaam boo aaree ñiy fecc aar élèves yi aar jàngalekat yi mooy aar nga boo leen aarul nag mooy aaruloo réew mi defe naa ñooñu bu leen vacciné rek dina régler lu bëri ci réew mi ak ci wàllu Covid moo tax loolu man dama koy encouragé waaye nag loo ci gis rek waxtaan la ak ñi ngi ko seqal mais defe naa ne loolu moom ministère xaw nañ ci xarañ te dinañ ko def incha allah. maire bi di rafet lu dogal bi nga xam ni Abdoulaye Diouf Sarr fas yéene na ko jël. lu mu yaakaar ne daal war nañ ko ci mën a def pour gën a mën a xeex mbas mi. nañu ko def te sénégalais yi aussi am claire conscience que lu ñu def rek pour aar leen moo tax ñu koy def kon lépp lu ñu ci mën a réaliser war nañu cee mën a jóg. meeru Guédiawaye ak bu Pikine daal di rafetlu seen taxawaay bi nga xam ni amal nañ ko ci wàllum njàng mi ñu fas yéene tamit am beneen taxawaay bu gën ci ubbiteef lekkool bi ñu jëm ñu yëngu ci wàllum njàng mi nekk ci banlieue bi ñoom it rafetlu taxawaayu mairie yi. kuréel gii di groupe pour l'étude et l'enseignement de la population farekoon ci diwaanu Tambacounda fas nañu yéene gën a yokk seen doole yokk seeni jéego ngir fexe ba jafe-jafe yi élèves yu jigéen yi di dund ci école yi mën a dakk ndax gis nañ ne moom mooy jur teel a maye giñ leen di teel a maye ba seenum njàng du sori mooy jurit di jàng ba yàlla def nga wann lor sam njàng dàkk loolee lépp nag lu ñu bëgg seet nu ñu ko wàññee ngir mën a may gune jigéen yi ñu mën a sori ci l'école bi dañu ci ànd ak Moussa Omar Gueye koo xam ni da nga ci war a yëngu nga daal di ci jot ci xibaar bi ngir na gën a mën a lëkkaloo Watgal ak Yégo ngir nag nan pexe lañuy jël ba lépp lu jëm ci wàllub sëy yu teel yi wala wann lor yu teel yi ñu daal di koy wàññi ci bërëb yi nga xam ni ndongo yi dañ fa waroon dem ngir jàngi. ak ñi nekk ci kuréel yi ñu leen di woowee APE yore association parentale yi aussi enseignants yi ak bàjjenu gox yi ñoom ñëpp dañuy jàpp ci liggéey wax leen ni leen ah, ci seen nag ci kàdduk Aminata li nekk leader élève animateur classe terminale ci lycée Bouna Sémignan moom nag nee na ci ren jii rek gis nañ ay eh, élèves yoo xam ni dañ leena a façon yéene maye fekk nag toll wuñ ci së. amuñu en classe amoon nañ si ay camarades yoo xamante ne en milieu scolaire dañuy tombé enceinte mais ñu ngi may mariage précoce mais certes am na ñoo xam ne rek elles sont conscientes que ni. kii di coordonnateur régional bi ngànk JEP fi nga xam ni moom mooy ci inspection d' académie bu Tambacounda muy Youssouf Signaté nee na ñu gën a baral ak yaatal waxtaan bi nekk na li nga xam ni dina indi saafara ci wàllum communication. ñu protéger leen euh, ci dëpp fléau yoo xamante ne yooyu la ñuy ñoom tamit ñu nekk ay relais. jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñooy professeur relais technique ñu leen di wax PRT ñoom itam daanaka dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci pexe yi nga xam ne war nañ ko jël ngir gën a mën a aar jigéen ñi nga xam ni dañu toll ci jàng. Dalangaabu commune la bu nekk ca département bu Mbacké foofee askan wa ci njiital maire ba ñoo ngi yëglu ndax bëgg nañu ñu gën leen a bàyyi xel gis nañu ne daal la ñuy fay cib juuti nga xam ne boo ko dajalee dana mat juróomi million di dem ci keesu état bi wares na ci mën a sukkandiku ba gën leen a jàppale jàppale ga bokk na ci ay matériel yu ñu mën di fajo waaye it euh, barab yi nga xamante ne mooy zone de production yi ak ni ñu làqoo ñu fexe nuñ ko làqarte Pape Balla Gueye Talla Samb Mbacke war a tolloog ñaar fukki kilomètre commune bu Dalangaabu ba tey mu ngi daal di laaj ay yoon ngir daal di fexe yenn gox-goxaan yi làqu dem ba dikk ba gën faa yomb suñ sukkandikoo ci maire bi di Ndiouga Faye liggéey yi nga xam ne nguurug Sénégal def na ko fa dañ ko war a daal di dolli. bëgg nañu ay tali yu bàyyeekoo ci route nationale bi dem Ngaabu dë bëgg nañu tali bu jógee euh, route nationale dem Digaan bëgg nañu yu bari yu mel noonu bëgg nañu lycée bëgg nañu ay case foyer bëgg nañu euh, terrain de football bu ñu clôturer kon bari na yu ñu bëgg yu des. fii nag jot ci garab yoo xam ne dañ ko mën a fajoo day faral di jafe tax na meeru dalangaabu bi di woote wàllu. ci wàllu wér gi yaram xanaa mu dolli bu baax euh, garab yi indil ñu it euh, wax dëgg yàlla su ñi fi ne di faj ñu xarañ lañu waaye na xëy na matériel équipement bi manqué na. donte ko ne sax nag ñun la war waaye kenn ku nekk xam na ne commune yu ndaw yi ci àll bi seeni recette par rapport euh, mënul lu bari ndax su fekkee ne da nga ne recette propre ci commune yu ndaw yi lan moo ci mënut ñàkk mooy taxe rural muy lu ñuy wax impôt te nun buñ ko dajalee bu am 100 pour cent matut millions ak wàccaay élection locale yi ci atum 2022 maire sortant bi nag mu ngi daal di xamle ne am na ab bilan bu dal xel ci diggante 2014 ak léegi terewul nag muy xamle ne waxu candidature moom teel na lool jamono yi nag li mu gis mooy daal di xaar investiture yi nga xamante ne benn bokk yaakaar moom lañu ñu nar a amal ñaar fukk ak juróomeelu ziyaara bi ñuy def at mu nekk ca raw communauté xaadar ba foofee di ko def tey jii ci ngoon ca lañ ko amal waaye xalifa bi eh, di xalifa cheikh bu yëbu njabootuk eh, cheikh Sidati al Kabir ñoo jël dogalub eh, daal di koy dàq tey jii la ko xam ne ci janoo bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi sàkku it ci ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñu góorlu wàccoo ak li kër docteur digle ngir moytu lu lawal woppi coronavirus ji Ousseynou Diop. te xaar tey jii dañu waroon daje fi li nga xamante ni mooy ca raw at ne nag dañ ko doon amal muy ziar bu mag waaye dañ ko mujj annulé la ko waral bokk na ci wàllu mbas mi Cheikh Biya Aydara di doom ci Mohamed Taxiyullah moo ko xamle ci ndaje boo xamante ni da ko doon amal ak taskatu xibaar yi. nag suñu borom subhaanahu wa taala dafa def ni jamono bi li fi nekkoon ba léegi moo fi nekk te loolu taxoon na ba moom di suñu wayjur taxoon ba moom ci wàllu boppam mbas mi taxoon na mu dàq li nga xamante ni mooy ziar raw. ci atam bu mujj bi nga xamante ni da ko fekk ci kaw suuf te ni ñu ngi Sénégal ak ñi nekk Mauritanie ak ñi nekk dans le monde entier partout ñu ngi leen di jox ndigal boo xamante ni bi suñu waajur joxe woon mooy kenn ku nekk na nga toog fi nga nekk wàccee kaamil def ay sikru ci kàdduk Cheikh ay Aydara li waral ndogal boobu mooy feebaru coronavirus bi tax sax mu yëkk ci kàddu jëmale ko ci taalibe yi ngir ñu gën a mën a fagaru ci feebar bu ni mel. yàlla dañu woon dooley boppam mu indil ñu mbas mi te lu am la te di sàkku àdduna bi yëpp te di sàkku taalibe yëpp te di sàkku njaboot yëpp te di sàkku ci jullit yëpp nañ ko bàyyi xel te dañ moytu te nañ respecté li nga xamante ni mooy mesure barrière yi. ziar bi nag moo doon ñaar fukk juróomeelu édition bi communauté xaadiriya fu nekk na daan jógee ci àdduna bi ngir mën ko teewee ren nag kenn du ko amal ndax feebaru coronavirus bi. Ousseynou Diop jërëjëf mbokk yi ne jërë ngeen jëf ci ànd bi ak rajo euh, télévision Futur Média foofee kon la ñu yem ak yenn ci euh, xibaaru timis yi 20h xibaar na dellu siwaat ci tubaab lay doon ak soxna Naata Mbaye jaa ngeen jëf mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm bu suba ak jàmm.